ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. mbokk yeeg téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte nag ak bànneex rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk seen journal de l'arène di leen wax nag dal leen jàmm ñu koy defee rek saa su nekk nii lay demee lépp loo xam ne jógee na ci làmb ji dinañ toog fii daal di décortiquer leen ko mais à chaque fois rek maa ngi ciy ànd ak sama góor sama xarit Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna mi ci laa nekk. maa ngi sant yàlla yaa ngi am jàmm waaw téléspectateur waaw TV dama leen di nuyu di leen ziar di leen mhm. ñaanal jàmm di di ko sàkku si ñoom mhm. di leen baalu ak rawatina tamit ñi nga xam ne ni ñu ngi seetaane fu nekk mhm. ak ñi nga xam ne tamit dañuy jël seen temps seetaan vidéo ba pare bind commentaire conseil la wala yu mel ni ñoom tamit maa ngi leen di nuyu commentaire gis naa ko la naan Babacar bàyyi xale yu jigéen yi ngay xool <laughs> waaw non xale yu jigéen kooku kooku xam naa tooñkat la rek a tooñ la rek mais bon xale yu jigéen bi mënoo ko a nag Babacar nag ñoo war a xool. <laughs> waaw waaw man ngeen maa war a xool. am na solo yàqul dara yàqul dara voilà. mu ngi noonu <laughs> voilà ñu dem seetaan yi revue bi daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 21 avril 2021 dañuy yëg ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy dooreeti ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk nag comme ca xëy fesal mooy Luc Nicolaï promoteur ba nga xam ne nii moom moo nekk ca Mbour Géej Luc nag daa mel ni fi mu nekk nii daal li Olof Njaay di wax daal la def tontu du forox ginnaaw nag fan yi ñëpp génnoon nañ naan ko lig Nicolas nii ni lig Nicolas ne ndax dina tëgg Ama Baldé Modou Lô wala du ko tëgg mel ni ki nag lig Nicolas daal loo ci mën a dégg moom bu dee Xaadim Gajaga la wala keneen ku mu mën a doon yaa génnoon di dal ci kawam lig tontu na la ba mu saf-sap ca sunu làmb ci xalima ka nga xam ne ni moom moo di Abdoulaye Dembélé lig day la mu xam ne na bu soobee yàlla bu may yàlla nanguwut la mu daan mayee daal incha allahu rabbi Modou Lô Ama Baldé moom saison bii dañuy sécurité ak itam ci lépp loo xam ne nii laaj na ko nee na bu soobee yàlla combat ba des na ko régulariser buñ ca paree maanaam ca régulariser tamit ca la ñuy continuer ak sunu ay jàkkaarloo ak sunu ay face à face ak lépp loo xam ne combat ba laaj na ko léegi waxu yemu ca de nee na leen maanaam boo déggee coow lu bëri maanaam bur wi rëng-rëng ju bari nee na jàppal ne bëri goyee def dara ñoom rek ñoom ñooy dox di coow waaye barigo ya def ba dis gann lig ne na dunu coow ne na moom nag talut coow coowut tey suba waxi noppi kuy wax say wax yow la engagé yaa koy wax waaye man lig Nicolas moom li ma xam daal la ma nekk maa nga ca te bu soobee yàlla combat bi moom ren incha allahu rabbi fas naa koy ni tëgg te itam danaa ko tëgg bu yàlla mayee loolu la lig Nicolas xëy tey wax biram ñi ngi tam mel ni ki daal mu ngay dalal xelam lig Nicolas ne na ko booyee boo tëddal te nelaw bu la neexee yow lig tëddal nelaw bay yandoor biram ñi ning moo ko wax loolu mel ni ki démb Xaadim Gajaga ma jiite Rock Énergie moo génnoon naan ko Nicolaï bu ma nee na tëgg su ma nopp na bàyyi te bu ko tëggul keneen dina ko tëgg mel na ki nag waxi Xaadim jooja moom biram ñi nga xëy na tey weddi ko ba mu set wecc biram ne na ko daal lig li am ba des mooy na sam xel dal combat bi sam combat la ndax nag nun ay gor lanu te yaa wax ak nun te la nga wax ak nun danañ ko matal ba mu mat sëkk-sëkk biram ñi ngi daal na na leer nañ combat bi moom ki koy organisé Luc Nicolaï la tudd dëkk fa nga xam ne nii moom mooy ca Mbuur koo xam ne moom organisé na combat muy Gaston Mbengue combat booba nag am na xëy tey di ca wax muy Xaadim Ndiaye ma ngeen xam numéro un mu caaro yi xëy na di décortiquer booy Niang ak Balla gay numéro deux la mu jàpp mooy booy Niang moom léegi loo ci mën a dégg bu doon xale tamit day màgg na ci làmb bu baax a baax ne na kon Balla gay na bàyyi ci loolu xel bu baax a baax waaye Boy Niang itam na bàyyi xel ne Balla gay fi mu nekk nii daal maanaam maturité xelam moom ñor na fi mu nekk nii ba yegg ca xomb maanaam kon tamit nee na ci loolu xel moom Xaadim Njaay daal loolu la xëy tey gis wala keneen koo xam ne nii moom la mu gis mooy roi des arènes daal mooy ay ambition moom la bëgg a doon moom Diène kayre ne na fi mu nekk nii daal li ma teree nelaw lenn na dégg roi des arènes man Diène kayre mel ni kii nag ginnaaw da koo bëgg am na koo xam ne nii mbër mu mag la nekk ci làmb ji ne ko samay loxoo ngi nii tàllal naa la ko kaay ma may la saas nu bëre muy Issa Pouye mu caaro yi ña nga xam ne moom mayante nu saas ba fi mu nekk nii ànd nag fas yéene di bëre di daan mooy waa fas waa Ndakaaru mooy mel ni que nag Fass Ndakaaru léegi moom mbir ya leer na nañ ndax xëy nañ nag wan ñu ñooñu ci aw photo moo xam Tafa Gueye la Kati Diop ak ñoom. ña nga xam ne ni ñoom ñooy Forza Serigne Ndiaye numéro 2 ak ñoom ndoofak ñoom Sibel mel ni ki daal kon écurie Dakar ak Fass moom léegi jaxase nañ ko mu nekk benn écurie démb nag moo nekkoon seen séance d'entraînement bu njëkk a njëkk sunu lamb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu yëglikaay bi di sunu lamb daal tey loolu la xëy tamit dinu ko yëgal leneen loo xam ne nii yëglikaay ba ñëw na ca muy koo xam ne nii daal ab xale la maanaam nekk ci lamb ji di promoteur muy Yacine Sarr yëglikaay bi daal nana Yacine la mu def deux millions cinq cent daal la fas yéenee teg le 16 mais bii nga xam ne nii ca la ñu jëm yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw andil ñu loola ca tuus ya yëglikaay yi ba tey buñ ca continuer dem record record moom tamit ñëw na ci ki nga xam ne nii moom moo di Samer Fawaas di am expert ci sport de combat xam-xamam daal ci loolu la màcc rëg-rëg nag la xëy di ko gën a ñaax wax ko la mu gën a war a yokk maanaam daal ne rëg-rëg li mu war a gën a liggéey bokk na ci poigne ak itam wàllum sol loolu daal la fa Samir Fawaz xëy tey di ko wax Adrien Senghor moom record xëy na nu xamal ne daal li am ba des ren day na mu démarré foor la def maanaam boo xoolee bi lamb ji ubbee ba fi mu taxawee ci koor gi la fa am ci ay journée toll na ci 4 gala ay million yu baree baree bari génn nañu fa yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu ak waykat ya nga xam ne nii tamit ñëw nañu way ca moo xam nday faatu aadama jëli la mbayang lum ba ci faye mbooj yëglikaay bi tey ñëw na tey décortiquer ñu la nga xam ne nii moom moo jot a am fa nga xam ne nii moom moom moo di ca fa nga xam ne moom moo di sa Senghor keneen koo xam ne nii xëy na di wax ci beneen combat ci Equivox TV ku yebu xaar ko fa muy docteur Macoumba Diouf maanaam daal directeur horticulture ba daal la mu xëy xamle nee na Boy Niang ak ka nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 combat di siècle la loolu daal la gis moom docteur ma Diouf nee na combat la boo xam ne daal bu jeexee des na ko xel di fàttaliku yemu ca moom docteur nag wax naa ko mbëri ca ba muy teel nee na leen xaalis bi ngeen di gagné muy ay millions bu ngeen yeboo di ko investir ci loo xam ne ëllëg bu seen seen carrière jeexee kenn du leen dimbali kenn du leen ketal bokk na ca nag mbayum dër mi maanaam daal di bay ay xaal ay ñambi ay banaana ay pombiteer ak i soble ak i kaaneeg ay tamaateeg yu mel ne ki noonu nga xam ne yooyu moom xam naa ne Ami Diouf ku ko ko jox war na la cee mën a defal palaa yu baax a baax gumis ak i salaat sax bu la neexee ay ayca bu nekkoon euh, revue bi euh, Babacar ñu daal di dikk ak euh, yéen nag ci journal suñu làmb tey xëtam bu njëkk kañ fa gis rek moo di ni ko Nicolaï moom nag dut yi nga xam ne amoon nañ ko ci combat Ama Baldé ak Modou Lo daal na ko dindi ndaxte daal xamle na ne fi mu nekk nii combat boobu dina am ci saison bi waaye ba tey rek lam xamle waat nee na seuls les tonneaux vides font du bruit maanaam daal bërigo bu deful dara mooy bëri bruit <laughs> waa xam naa li ko tax a génn tey wax mhm. parce que li bëriwul lu muy wax mais bon li ko tax a génn tey wax mhm. ah coow nag su bëree mhm. te coow lépp yow boo xoolee ci yow lay mujj braqué wu dafay baax nag nga génn leeral nit ñi wax ak ñoom xam naa moo tax tey mu génn waxtaan ak Abdoulaye Dembélé ci sunu làmb leeral parce que coow li bëri na ci combat Ama de Modou Lô du am dina am lig mënu koo tëgg nangam sangam décembre lay am ak su ko tëggul gis nañ sa ku mel ne xaadim nga jëg président rokene si démb génn xaw a tànk maa waxee noo xam ne nii daal ah mooy loolu. Mhm. xam naa nag loolu moo tax nag lig nag nee na xaaral nag ma tontu. comme moom moo tëgg làmbam. Mhm. moo wax ak ay mbërëm moo joxe xaalisam defe naa kenn gënu ko placé wu ci wax. defe naa tey kon su gëyee xëree leeral nit ñi ne combat bi bu soobee yàlla dina am ren. Mhm. te ci saison bi la koy tëgg. te itam dana ko régulariser au niveau du CNC bu ko defee la ca topp ci ay jaaxaarloo yoon def ko ci sécurité lépp. defe naa kon loolu wax ju leer nañ te lig Nicolas nag. du ku ñuy jaxase ci làmba ah, parce que moom dafa dafa dafa non que xam na li muy def nag ñu mm-hmm, waxante dëgg rek mm-hmm. wax dëgg yàlla promoteur bu nekk am nga mérite ca na ngay jëfe na mu toll ci yow mm-hmm. waaye moom it am na mérite parce que nag bëri na lu mu rena fa ci làmb en tant que promoteur loolu faw ñu nangu ko ko kantaan nag li mu wax ne bëri gu bu deful mooy bëri coow waa loolu xam naa ne ah am na ñu muy waxal ab tontu la rek waaw ab tontu la parce que ku mel ni xaarim nga jëg démb ni mu waxee ah loolu tamit damaa yaakaar ne du woon wax bi noonu la war a demee. Mhm. kon ça veut dire que bu lig génnee tey wax loolu tamit defe naa nag kon sooy xamal li ngay wax rek mm-hmm. mais del xaar tontu bi mm-hmm. ça dire ko jar xam ne li jëru ko lig ni ko laay bu tëggul combat bi keneen dina ko tëgg wala dina ko tëgg wala lii yooyu yëpp jëru ko mm-hmm. li am solo mooy na ko ci génnaat na ñëwaat na te kuy yokk làmb la ñaanal ko yàlla mu tëgg combat am ñaanal bépp promoteur loolu moo ëpp comme li ma waxoon keroog rek waxante bi yu sew yeeg yooyu amul sa njariñ quoi. Mhm. sérieusement par la amee. te muy dëgg ki nga xam ne moo di biram ñi ngi moom itam daal dina ci àddu tey leeral rek nee na bi nga xam ne moo di combat Modou ak Ama Baldé sera organisé par Luc Nicolaï Luc Nicolaï rek moo koy tëgg yeneen promoteurs yi nañ dem toog xaar. waaw parce que boo gisee moom it mu wax loolu xam naa coow li la waxoon la rek. Mhm. bu Luc waxee moom yore Modou itam mu wax. dafay gën a leeral mbir yi mhm. kon te itam defe naa ne Modou Lo tey bu li xam si carrière am ah defe naa ne lu baree baree bari birim ñu ngi koy dogal mhm. yaa ngi dégg ko naan lii la moo ko naan laa la loolu nag li ko waral mooy àndu fidélité gis nga nit booy ànd ak moom da ngeen di ànd te yàlla tax mhm. ànd bi dëgër fa am waaye tamit da ngeen bu intérêt yi ba pare da di teg yàlla mhm. maanaam mooy àndu biram ñu ngi ak moodu moodu nag su biram ñu ngi xëyee xam ne ne lig nikolaay moo koy tëgg bu soobee yàlla defe naa kon jooju wax day frenku laayu biram mi tamit wax dëgg yàlla nekk na mag boo xam ne ci sama gis-gis wala li ma xam si moom royukaay la bëriwuli wax te itam doo ko dégg ci ay détails jàppal bàyyi. wax dëgg yàlla parce que man su ma juumulee interview jël naa ko fi de mais yàggul na loolu. Mhm. mooy bi jamono yi moo doog Balla waree bëri. Mhm. te mu amoon ay wax. mu génn wax ca dat ba defe naa ba mu ci génnee ba tey li ngay gis biram wax barewul amee am na solo te loolu taamu nañ ko ci kilifa dëgg la waaw kilifa du mel ni Babacar waaw du bëri wax kilifa moom bu wax jotee rek na nga wax waaw bàyyi bu wax jot rek nga wax waaw yow nag da ngaa war a wax waaw waaw mel ah, ña war a wax dañoo war a wax ñi ah, da ngaa bokk ñi war a wax loolu la yàlla dogal genre gomi si dañoo war a noppi <laughs> ci ginnaaw caméra bi la ñuy toog <laughs> noonu la voilà buñ jógee foofu ñu jàll ci ki nga xam ne moo di euh, Khadim Ndiaye Balla Gaye lam ca xam ne rek moo di kii di Boy Niang Boy Niang 2 a grandi mais Balla Gaye tamit am na maturité boo xam ne ñoom ñaaral buñ euh, jàmmarloowee ku nekk dinga nga sa bopp. waaw parce que li mu wax noonu lu jar a bàyyi xel na parce que Boy Niang màgg na effectivement parce que Boy Niang màgg na ça veut dire que niveau bi mu yegsi ci làmb ak niveau bi muy bëree. ak ni muy doxale yorul jikkooy mbër mu ndaw. loolu moom ku koy kuy bëree moom na nga ci bàyyi xel. loolu su boobu Balla Gaye teel cee bàyyi xale la da d'abord man na bàllaa ko jiitu si làmb semaine bi bàll def defu ko loolu la yàlla dogal waaye tey nag moom itam am na lu mu def ba am méritu bëre ak bàll mhm. kon defe naa ne garab te kaw la fekkante mhm. kon waa kër bàll nañ bàyyi ci loolu xel booy ñaa même bu fekkente ne bàll dakaa jiitu si làmb tamit ami mhm. ah du xale de si biir bëri déedéet te it am na staff bu doy nag am na sax bu doy bu wóor parce que loolu moo tax tey mu atteindre niveau bi mu atteindre Balla Gaye 2 tamit bu grandi bu bu maturé itam loolu tamit defe naa ne mooy li war am mhm. parce que defe naa ne 2005 bi mu ci làmb ak tey dégg na fi roi des arènes mhm. daan na fi mbër yoo xam ne def na fi loo xam ne yàlla jafe na ci ay moromam nga génn ku ko def wala ko def du ñu bëri mhm. new new ma amul ko def mais du bëri ko def maa daan yaxee jub yi kii ni rek premier defeta maa ko jox defe naa wax la kon defe naa tey maturité ci la toll actuellement mm-hmm. moo tax tamit mu muy doxal ni muy doxale mm-hmm. ànd ak ku mel ne Aziz Ndiaye tamit mm-hmm. muy staff boo xam ne tamit ku dëgër staff bu dëgër la yor kon ñaari mbër lañ yoo xam ne daal dama naan seen staff baax na te fi mu nekk nii daal combat bii ah na ko xel di fàttaliku yàlla nañ ci yegg na ko xel di fàttaliku si bakara olofam rek bu ñu jógee foofu ñu daal di dem ci ki nga xam ne moo di Diène Kaïré moom nag mu ngay affiché rek li nga xam ne moo day ambition am nee na fi mu nekk nii je veux devenir euh, roi des arènes moom daal roi des arènes bi la bëgg. waaw waaw ah waaw loolu day li ñuy wax rek borom bitigu mbagg boo xar xol ba amit magasin bu mhm. mag nga cay fekk. Mhm. defe naa ne tey xale la. Mhm. papaam nekkoon si làmb di bëre ba bàyyi bëre. mu juddu si keppaaram papaam yaru ko ci muy xale bu yaru parce que loolu la wane loolu la ñu gis si jéen mu ñëw tamit ci làmb ah ñëw di bëre ba yegg si tey fii mu yegg si defe naa ne mbër bi mu daan bëri ci démb moo lay wan ne làmb. dugmaas dabante la Moodu Anta comme ne nga a ci mm-hmm. kaw lay fekkante mm-hmm. ndax bi ñuy dem ci làmb ji yàgg naa ko wax Moodu Anta moo jén bokkuñu niveau mm-hmm. bi ñuy bëri ji parce que Moodu Anta da koo jiiti ci lu bari da koo jëg si làmb ëpp ko ay ndam ëpp ko vécu mais nag jéen mérité woon na mu bëre ak moom mérite boobu nag bi mu ko amee dafa saisir chance bi bëre ak moom daan ko kon bu jógee ci Moodu Anta mbër mu toll noonu nga daan ko mhm. defe naa nag sa xel fi mu nekk nii moom li ci war a nekk mooy mooy bëgg a nekk roi mhm. te effectivement bu liggéeyee ne ci condition yi ma gis ñu téye ko ku mu tegu ci am kilifa mhm. mën na nekk loolu mën na ñëw

am solo la si lamb ba dafa xumb nag. non moom bu duggee rek ay ambiance am xulli bët yi la. waaw non wala <laughs> ko doon seetaan. <laughs> am solo kenn c'est lamb doy waar rek. dëgg la loolu am na lamb doy waar. doy na bu ñu foofu dem euh, fële ca Fass Ndakaaru reprise des entraînements hier euh, ki nga xam ne nag moo di Kati Diop moo dirigé euh, li nga xam ne moo di première séance kon lañ doon wax di ko coow mhm. mu mujjee am maanaam Fass ak équipe Ndakaaru équipe Fass léegi boole nañ ko mhm. loolu nag kon démb lañ ko dëggal defe naa nag bu ñu commencé na entraîné nag mooy wax ji jeex na mhm. Amadou Kati Diop nag comme ni ñu liire démb moom mooy entraîneur bi moom mooy l' entraîneur principal bi kon defe naa ne moom itam bu dirigé entraînement ya loola moom mooy li war a am te Amadou Kati Diop dirigé nay entraînement bettul kenn ndax ku def Tapha Gueye la mu doon ci entraîneur jaar faak Yaxya Diop Yékini ak yeneen ni bëri yoo xam ne bu ñu ko doon lim du jeex defe naa ne tamit boo dirigé entraînement ci wàllu làmb ah kenn du ne ah, <laughs> non non kenn du <laughs> loolu la yàlla dogal ci kati <laughs> am na solo ñu leen di ñaan rek seen ànd boobu mhm. ah li tax ñu ànd rek la mu waxoon rek yàlla na ko dëgg rek lal mhm. ak bëgg njariñ amiin waaw euh, yooyu la xibaar suñu làmb moo ko fësaloon bu ñu jógee foofu ñu daal di jàll nag ci record euh, kañ fa gis rek moo di ki nga xam ne moo di expert en sport de combat bi di Samir di àddu ci mbirum Reug Reug nee na daal lam gis mooy Reug Reug dafa war a gën a liggéey ci li nga xam ne moo di point euh, sol bi waaw loolu de maanaam bi. waaw waaw loolu moom boo déggee bon c'est-à-dire que ak Samir Fawaz mhm. euh, yàlla def na mu nekk koo xam ne loolu moom am na ci wàllum xam-xam ci wàllum lit wàllum sport de combat. Mhm. bon kantaan nag nit ki. bu fekkee da nga dafa nekk ci benn milieu di xale mm. nga am loo ko ci war a mën a conseil defe naa war nga ko ci conseil xëy loolu tax mu xëy tey génn ci record di wax ak rëg-rëg mm-hmm. rëg tamit loolu war na ci tiir ay leçon rek mm-hmm. li ko nit ñi di wax mu gën koo bàyyi xel gën ci yokk mm-hmm. donte mu ngi liggéey te affaire yi mais nag affaire yi du doy te da buy génn drapeau réew mi lay gàddu kon moo tax tey te Samir Fawas tamit di doomu Sénégal boo xam ne am na droit tey yokkal ko xalaatam kon defe naa rëg-rëg dina bàyyi loolu xel mooy profité du nuyu agent bi nga xam ne mooy layti waaw euh, fi nga xam ne moo di Adrien Senghor démarre avec une vitesse maanaam daal gis nañu combat yu bëri euh, jot nañ fa am fi mu nekk nii te euh, millions yu bari daal jóge nañ fa ku ñëw bëre yóbbu. yóbbu waaw moo lay wan na lit simple bi moom déjà bi yow saison bu ubbee dafa. Mhm, dafa waaw vraiment parce que Adrien Senghor tamit. Mhm. vraiment boo xoolee quatre jours jot na fa am ci diggante boo xam ne yàggul. loolay wan ne kon gars yi namoon nañu affaire yi mhm. millions yu bëri génn na fa mbër yu bëri bëri nañ fa mhm. waykat tamit ñëw nañ ça veut dire que kon lutte simple tamit vraiment moom itam vraiment mu ngi dox waaram daal mu ngi mhm. béy waaram bu baax a baax a baax ko euh, organiser ndog de te man dama bëgg ku ma invité chanteur yeeg ñëpp a ngi organiser man euh, ca ci jamono may door. Mm. daan naa def. yow mi sax da ngaa war a organiser. daan naa organiser ndogu. di dem ci mbir yi boog di leen jël ñuy organiser ay ndogu. daan naa ko def def naa ko fa ma jëkk a jaar muy Lutte TV def ko Leewtoo. Mm-hmm. mais boo nag xam nga euh, lit mbir tamit boo ko defee def ko defati ko. Mm-hmm. dafay baax. mooy loolu. Mm. mais terewul leneen lu nekk mën na ñëwaat ci kanama. Mm. parce que weeru koor lañ nekk weer la woo xam ne ni defe naa ne euh, organiser ci ndogu woo ay nit jox leen ñu xewlu. Mm-hmm. loolu la am solo la. Mm-hmm. ah bu ma ko defee dinaa la invité. waaw defal nga invité wala waaw wala wala Gomis def ko wala keneen. def ko wala keneen am na solo wala xulle. <laughs> da ciy baax pourquoi pas yàgg mar tout est mm. possible. noonu la waaw wala Equivox sax. lépp mën a ne lépp xaj na ci. Mm-hmm. tàggatoo voilà dama lay gërëm di la ñaanal jàmm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre rek à mhm. travers Equivox TV mhm. mais aussi tam di nuyu suma ay soppe mhm. tamit damay dem ba parcelle unité 19 nuyu koo xam ne mooy Papa Guèye Papa Guèye ministère suma xarit suma topp soppe taal bi Serigne Touba di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko njabootam rawatina bébém bi mu doon ngénte bu yàggul maa ngi ciy jégalu ci ñàkk a teew ndax dama fekkoon bawal mais moom suma nit la du nitu kóllëre nitu démb la te xam nga kóllëre démb dafa jafee sàmm mais Papa Gueye ku baax la maa ngi koy bëggee di nuyu sëñ daam ñoom ñëpp ñu ngi unité 19 parcelle sëñ daam mm-hmm. tamit di entrepreneur maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax mm-hmm. te 19 soo fa duggee mënoo faa dugg ba gént nuyoo père ba mm-hmm. kooku tamit kenn du ba maa ngi koy ñaanal nuyu ay ba sama soppe bi ki nga xam ba daal maa ngi koy béggee gomi ba di doomu père ba di nuyu famille boo yëpp di nuyu tamit képp koo xam ne daal yaa ngi parcelle ba 26 mi di nuyu Sénégal yépp mm. di nuyu tamit ki nga xam ne ni moom mooy Papa ndax moom muy mbëru unité 19 ak mbër ya nekk maa koy nuyu Papa Sow mm-hmm. di nuyu adversaire am Siteu di nuyu mm-hmm. tarkindaayu jàmm gën yi mm-hmm. xam nga sama gars yi ñoom Abdou Seck ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg ñoo ñëpp ñu ngi unité ñu ngi ñu ngi jàmm gën maa ngi bëgg ñëpp di nuyu ñoom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 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na